asalaamaaleykum mbokki internautes yi dootuma leen ko présenté seen émission ambiance koor tey nag ñu ànd ceeg nag euh, bon du ma wax ku mag a mag a mag muy euh, Zane DJ Zane maa ngi lay nuyu bu baax a baax baax. maa ngi lay fay di nuyu mbokk internet yu Tivactu. Euh, DJ Zane tey nag waa Tivactu ñoo ñëwoon sees se sila di la wax yow nan ngay dundee koor gi ak par rapport ak sa liggéey. bon koor gi comme ni ko ñëpp di dundee ah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di gën a yokk suñu cofeel ci Cheikh Seydi Ahmed Tidiane bon boo xoolee nag <laughs> c'est un peu dur mhm. ndax ñun ay waxkat lañ quoi <laughs> ci ci ci cérémonie yi la ñuy dem mhm. daanaka suñu liggéey day xaw a taxaw un peu mhm. mais bu dee comme sama genre bi am nañ alternative avec l'enregistrement des publicités avec les émissions à la radio ak modérer yenn cérémonie donc koor gi nag li ma gën a sama activité bi gën a kii mooy cours yi may joxe mooy prise de parole en public yi may def euh, un peu partout daal d'accord ñu ñëw ci sa wàllu liggéey ñu gis ni li ngay liggéey tamit dafa metti ta wax aussi dafa metti te léeg ko loolu tamit nan la lay def. parfois ma réer <laughs> parfois ma réer benn jour nekk naa épice di animé benn <laughs> cérémonie on m'a donc les résultats pour ma joxe ko. Mhm. mais j'ai confondu <laughs> vraiment affaire yi laa jaawale ko parce que dama jeexal j'étais épuisé pour dire à quel point c'est difficile. Mhm. parce que biir bu deful du taxaw. Mhm, doo mën a wax. xam nga xalaat bi parce que man dama am habitude bala may dem di cérémonie mm. soit damay jël soit ay café affaire yooyu noonu mm-hmm. et dama ko tàmm pour nekk en forme wala jël yenn boisson mm-hmm. énergétique yi daf lay may kii quoi. d'accord ñu gis ni di Zar moo ngi def liggéey boo xamante ni euh, yombul muy euh, wàllum comment dirais-je. communication communication ngay def formation bi aussi ñu gis ko ñoo ngi yaa ngi génn partout euh, au di dem ci yeneen régions yi di leen defal. te aussi loolu gis nañ ni dafa jafe ci réew mi yow en tant que présentateur nga koy def. baaw woy euh, en tout cas lenn rek moo fi ne comme li nga wax lu jafe la. Mhm. parce que pour nga am reconnaissance ci milieu bi. Mhm. ba gars yi la mhm. il faut mettre vraiment euh, donc euh, kii bi ci war daal fulla bi ci war fayda bi ci war engagement bi ci war waaye tamit nga prouver. il faut nga prouver quoi pour gars yi la man je me rappelle euh, fait presque trois ans ou quatre ans on m'a pas mosuñu mm-hmm. ma fay dara mm-hmm. man maa daan solo dem ñu wax ma cérémonie bu ma demee ñu jox ma paas ma dem mm-hmm. est-ce comprendre nga ah, j'étais à la rajo Alburax FM fa laa njëkk a nekk après ma kii dafa nekk da baax donc affaire du demee noonu mais actuellement nii pour ñu am sa publicité on te pour ñu déplacer la on te pour nga am sa présence sax wala sa vidéo ci nangam on te moo tax il faut prouver nga wane sa sa sa li nga li nga am daal mhm. mais nag lu jafe la mhm. wax lu jafe la. ñu gis ni tamit DJ Zane génn na Sénégal dem ba Gambie dem présenté fa benn événement bu mag a mag a mag loolu tamit boo boo ñu ci mënoon indil ay leeral parce que dañuy gis DJ Zane moo dàq reetaandoo fii ni ñi moo dàq kaf fii mais euh, génn na Sénégal. baa way loolu loolu loolu loolu bon c'est pas c'est pas du doon affaire bu mag quand même noonu laa ko mën a jàppe parce que ku nekk loolu ngay ñaan mhm. gis cérémonie ñu ne ah non Sénégal yëpp nañ tànn kii yóbbu ko mhm. ñu yóbbu ko durant semaine yi ñu fay nekk yëpp moo gérer la modération moo gérer lépp donc c'est un plaisir boo xamante ni dama koy am et à chaque fois yàgg nañ ma ko proposer mais man bëgguma di kii ci yooyu noonu mhm. bu ma arrangé wu dama dem mais damay wax rek ñi nga xamante ni ñoo ñu suivre ni que ni euh, mën nañ mën na nekk affaire bi lu mën a nekk les petits animateurs les petits présidents lu mën a nekk le il faut juste nag ñu ñu ñu concentré wu ci lu ñu def parce que communication dafa am mm-hmm. mooy yow en personne mm-hmm. au-delà de ta voix mm-hmm. sa personne ni ngay soloo ni ngay waxee est-ce que comprendre nga euh, ñi ngay jëflanteel sa comportement au-delà de ta voix parce que la voix mooy premier instrument wu animateur est-ce que comprendre nga donc mais sa physique ci la bokk léegi bu ñu respecté la ba man la woon ni ah kaay modéré ñu cérémonie ministérielle rek kaay yóbbu ñu fii yóbbu la ci ministère wala ñu yóbbu la ci nangam ni ñu kaay modéré il faut ñu am beaucoup de critères critères yooyu nag bon c'est facile pour nit ñi am ko il faut juste nga nga nga gëm ko. Euh, exactement ci wàllu gëm-gëm boobu la ñuy la des tamit ba tey ji ñu gis ni Didier Zane moom avant muy nekk euh, animateur lan la loon def lan moo doonoon aussi option woom mais je vous dis une chose nag wax dama ko yàgg a bëgg <laughs> non c' est clair Zane mu animateur la mosa ne ba mu juddoo ba léegi parce que bon j'aime bien rigoler quoi parce que je suis une personne boo xam si je suis comique euh, jàng naa actuellement maa ngi licence 3 en journalisme et communication mm-hmm. bon yàlla dogal na kalaas bi moo mosa nekk wax dëgg fa yàlla euh, du ma génn cinq premiers yàlla dogal na lool mm-hmm. moo ma faay ci nekk ci mais communication la mos gëm moom laa mos liggéey moom laa mus a gëm Zane musul ci leneen lu dul communication voilà. Euh, ñu bëgg xam Zane moom célibataire la wala marié. Zane. il célibataire bu mag a ngi nii toog. <laughs> mais Zane nan lay xaar ci jabar wala dafa gisul ku ko nopp wala xale yu dañ ko lii waaw <laughs> bi kii moo. Euh, <laughs> wala Zane dafa gisagul ku ko doy. du question de ku ko doy sax ah. mais xam naa ci kanam xam loolu affaire yu la. Ah. mën naa jékki-jékki suba ni yàlla dajale ma koo xam ne mooy doon sama soxla loolu du mm-hmm. dara n'empêche que di nga am bon ñoo nekkal et tout mm-hmm. bon pour des destinées xam rek mais yàlla moo xam quoi. Mm-hmm. peut-être yàggatul quoi. Uh-huh. en tant que célibataire nan ngay dundee koor gi sa biir kër parce que célibataire aussi dafa metti ndax <laughs> lépp yaa koy préparer sa bopp loo waxul jot li ma doo ko am. Mm, bon mais boo amee jabar yu baax. man sama jabar ma gi dañoo baax de. Ah. ni ñu toppatoo seen borom kër noonu la ñuy toppatoo dañ ma lalal napp. waaw dañ may defar don sama jabaru mag yëpp muy xadim boobu muy ndey sekk muy semu dañ may lalal. sama boo fi dikkee samay gan damay am mhm. gan chaque jour. Mhm. damay may gan chaque jour dañ chaque jour man yàlla moo mhm. dogal def loolu ci man chaque jour dañuy lal defar xam nga technique yu normal su ma fi nekkul sax dañ may woo sax ndax ñu defaral la dugalal la et tout non man moom dund ma dund boobu mais am na ay célibataire yu dund dund ko bon nag ay kaasu kaw ay mburoog bërëg <laughs> man duma lay lool duma xëdde lool. non yow yow da neex Jeanne mais Jeanne aussi euh, moom ban classe moo ko gën a neex si kalaas yi mu doon def. sama moo seconde bi moom seconde au niveau de Dabax Alpha. Mm-hmm, mm-hmm. non classe boobu duma ko fàtte. Mm-hmm. maa ngi ko bokkoon nag ay gars yoo xam ne dañu exceptionnel. koor gii dama yàlla baal koor sama classe seconde. <laughs> Euh, foofu la kooru kooru gàlle sax def naa ko galaas sa bopp xam nga loolu yàggul. kooru gàlle parce que maa ngi ko bokkoon ak ay sadik. man mhm. dama sadik bokk ay mhm. sadik ay Saliou Thie ay mhm. Ablaye Fall ay Amadou Kaw Ñing ay Papa Idrissa Sall ñooñu ñoo nekkoon gang daal ay Abdou Aziz Fall. Ah, sama sama xarit Serigne Thierno si affaire yooyu noonu lu def nañ ko non ah, classe seconde yàlla ma ko yàlla <laughs> zal zal mos ngaa war waru gàlle. mais nag. non mhm. yàgg naa ko def. Mhm. waru gàlle yàgg naa ko def. Mhm. je me rappelle euh, dañ daan dem marché quoi. comme fii bu ñu déggee dañ daan dem marché après da ngay cotiser sa benn euh, cinquante franc wala cent franc. jënd caagi rek soo làqatu. lekk lekk fenn beneen bi ci des moom rus naa ko wax boobu moom dëgg ma ko. jéggal waxal rek. mais loolu seconde gii la yàggul. mais euh, xam rek affaire de jeune kër mm-hmm. kër voilà. Mm-hmm. affaire de kii la quoi <laughs> góoru gaal. kon déjà dañuy bàyyi question bi mu dem. mais mm. zan li ñu dese ci waxtu bariwul duñ la fi tee. Mm. Euh, dañ ma bëgg nga joxoon sa ay kàddu yu mujj rek parce que yow moom waxtaan ak yow dama ciy kontaan trop parce que mm. man bu lu dara yow laay roy ndax man yow yaay. Euh, chaque jour da woon naa di jël ni muy def fan foog ma man ko. di présenter si nit ñi di présenter ci oo ko yombul nag. mais yaa ngi ci parce que yaa ngi à l'aise d'abord ci micro. Mm-hmm. beneen boo nekkee ci kaw sa ça à chaque fois boo yi may encadré yu ci bëri dama leen koy wax mhm. ni leen faaw nga libre mhm. animateur da ngay libre mhm. bu la kenn tënk moo xoolee dañ naan zan moom il est comme foo ko fekk da ngay daaju ko loolu mooy téye nit ñi beneen bi ci des mooy damay sama kàddu gu mujj rek mooy j'invite à tous les animateurs ñi nga xam dañu nekk ci média ñu xoolaat si quest lan mooy communication lan mooy communication parce que du jug rek sama baat neex na wala dama ko non non c'est pas ça c'est beaucoup plus sérieux beneen bi ci des ñu jëm di entreprendre di entreprendre donc a euh, euh, travers donc yéen moom samay collaborateur ngeen li jëlee nañ ci lu yàgg à mm-hmm. travers Zan Events mm-hmm. bi nga xam ne maa moom mu doon une boîte de communication mm-hmm. boo xamante ne ak événementiel donc événement yi gën a mag Tivaouane maa koy tëgg dañu fournir ay animateurs les événements di leen fournir ay sécurité ay stratégie de communication stratégie de financement di gërëm rek équipe bi may ñëpp parce que ñu bëri dañu jàpp ne Zan il est seul Zan n'est pas moom kese am na ñu koy gunge am na ñu koy jàppale ci liggéeyam quoi ku ci mel ni Asmalik Badiane mm-hmm. Asmalik kooku c'est mon mm-hmm. jumeau mm-hmm. c'est mon ami ku baax la xam nga ku ci mel ni Mouhamed Lamine saar ku ci mel ni Mouhamed Diop ku ci mel ni Papindoy xam nga gars yoo noonu ay Papino ñoom ñëpp dañ ci jàpp les animateurs de Tivaouane aw ma seen fay Malick Mam As xam nga ñooñu ñëpp équipe lañ la wax boo xam ne ñu suude saa su wootee dañ koy wuy ji xaaru ñu ni Zane la bu la neexoon ñu morom la xam nga mais xaaruñu loolu à fois bu Zane wootee dañ koy wuy dañ koy jàppale dañ ko mais nag lii may wax moom je saa ça aux autorités tivaouanoises mm-hmm, mm-hmm. mooy média tivaouane yi mm-hmm. importance bi ñuy jox média yi nekk ci biti nañ leen ko jox exactement surtout loolu dama dama dama koy réitéré boo gisee bu leen fekkee ci conférence de presse sax ni ñuy privilégié duñ leen ko te pourtant fii c'est à la base base mooy lépp nañ leen jàppale ñoom ñoo leen mën a soutenir donc loolu laa doon wax di gërëm ñëpp ah di gërëm sama sëriñ sama xarit sëriñ Thierno si bu Serigne Mor jàmm si borom suukar si mhm. moom mooy sama Serigne mooy sama lépp mhm. yàlla xam ne ko di sant sama yaay sama papa samay grand frère mhm. et tout ah voilà. ñoo ma jàppale euh, dama am question bu ma fàtte woon. yow kan mooy sa wasila. waaye loolu jëtt laaj. dugal sama ne xol ñun Cheikhu Tidiane Chérif Xutbul Maktum Barzax kooku rek la ñu topp. moom la ñu bëgg moom lañ dañ cee gumba tax taxlu voilà. moom yàlla na yàlla def mu nangul ñu suñu cofeel moom moom Cheikhou Tidiane ñu jaar ci buntu Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour Al Khalifa mooy suñu buntu ci moom yàlla na ñu yàlla nangul suñu taalibe voilà ok merci beaucoup li nag moo doonoon euh, seen émission ambiance ko ñu ànd ci ak DJ Zane ku neex a dalal ndeysaan ku mën a wax aussi <laughs> man dama koy wax naan ko man yow yaay sama idole ndax su ma gisee muy wax si si seen damay content de trop. damay toog di ko diglu franchement di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ak beneen daanaan incha allah ak waa Tiv Actu merci beaucoup aussi euh, Doudou Niang sama xuloo waale chaque jour man ak moom dañuy xuloo euh, merci beaucoup DJ Zane. merci beaucoup invitation te mm. mënoon na la si bañ a fekk. merci merci encore une di la wax tamit yaay sama idole. <laughs>